Omar nañu resté ba léegi si yow. on va parler parce que ginnaaw ginnaaw suñu góor yi ñëwee récemment jël troisième suñu jigéen ñi ñooy waaj a dem. Mhm. fële ca Cameroun pour participer afro basket. Mhm. foofu noonu mais afro basket bi nag dafa am changement parce que cadre yu bëri ñëwuñu comme ay Oumou Kalsoum ak ñooñu. Mhm. ñu bëri ñëwuñu mu ni set nouveau mu nekk lu bees mu nekk la nga xam ne peut-être dina participer si développement équipe nationale dina am changement. dina am euh, ay ñu ñu leen di ñaanal ñu jël euh, ñu jël kii bi. ñu jël affaire parce que leena leena leena waaw ñëw nañ leena comme que leena ñëw rek baax na leena leena moom cadre la parce que moom mooy moom mooy <laughs> parce que commencé di nga xam góor ñëpp <laughs> ñëpp si leena lañ jëm mais comme que leena ñëw na Yaasin ñëw na ak kii di Umu Xayri tamit ñëw na je crois Umu ñëw na mais ñeneen ñi ñëw ñëw ñeneen ñi ñëw ñëwul waaw ñeneen ñi récemment lay commencé ñu ñu ñu yaakaar ne li ñu doon def di dinañ ko def parce que ñoom ko lu ñu mënti wax ñoom ñoo tane góor yi si benn côté parce que ñoom euh, récemment jëloon nañ lii di afro basket bi. afro basket mu doon loo xam ne lu am solo si afro ñu leen souhaité tamit bonne chance sunu gaynde yooyu noonu euh, notre les lions. Euh, ah, ñoo ni saa ku dee wax ne léegi affaire parce que mooy commencé euh, le 17 septembre jëm ba le 26 septembre ñu ñaan rek incha allah rabi euh, le 26 septembre boobu que lu ñu ñàkkoon lu ñu ñàkkoon kii kiigaale góor yi ñoom ñu remplacé ko ñu mën a kontaan tuuti si basket bi incha allah man ñooñu wóoru maa comme que leenaag fa ak Yacine jàpp leen rek incha allah lépp. Yacine moom muy fa moom Yacine Diop ah, muy fa. Ousseyn moom après Yacine laa koy may. Ah. si suuf cadeau mu laa koy defal cadeau sa anniversaire bañoo ko de mais foofu noonu mu mu mu mu mu commencé dama fay ñëw. Mhm. parce que maa ngi dégg mu ne yokk nañ set ñaata ñu bees. set set nouveau. Euh, set nouveau lu baax la ah. parce que gis nga sport bi muy football bi muy basket bi waxoon naa ko fi. daf ci bari xale yo xam te dañoo basé wu bay seen lépp di basket. gis nga bu bu bu afro basket amé wala coupe d'afrique am wala bo coupe du monde am. nga jël set xale len da fay encouragé yi nga xam te dañoo nekk seen gënaaw parce que chaque jour dañuy am yaakaar. mais su fekkee chaque jour da ngay maintenir même tête yi di len yóbbu maintenir même tête yi di len yóbbu. mais ñi nga xam te dañu nekk suuf duñu dootuñu am dañuy perdre espoir. ba noppi dootuñu am courage du def. mais bu fekké ya ngay jël ben ñaar dañuy am courage man comme ko dem na fi na yok sama doole wala na yok sama. li ma doon def ëllëg peut-être déwén mën nañ ma woo wala déwén mën naa génn loolu maa ngi ciy nga xamante ni mooy coach yi ñoo nga xamante ne dañuy génn di xool joueurs yi wala joueurs yi a baax kaddu yi rafetal trop benn mënu ma yi mënul sànni xamul yi mu a baax Oumar ñu a baax di nga xam ne un amul amoon uh, club. club waaw dafa toog un an football. waaw xamul fu mu jëm. Mhm. da doon football da doon esporantu footballantu rek. Mhm. mais de récemment mu ngi uh, benn équipe troisième division jël nañ ko Saluton. ñu ñaanal ko mu mu mën a rebondir ba mën a ñëwaat équipe nationale. incha allahu rabi kooku ba club yu mu nekkoon euh, parce que tamit waaw nekkoon na kii Salle Place jógee kii mhm. Salle Place dem 3. accident am boobu nag moo xawoon wàññi tuuti. accident bi accident accidenté woon fële ci Angleterre. temps yii muy Crystal Palace looloo ko wàññi woon un an toog na football ñu ñaanal ko tamit comme li may wax rek moom bokkoon na si cadre équipe nationale yi. Mm-hmm. te tamit Gose Magic doon génn rek centré. wallaay Moussa Konaté dugal waaw ah, léegi nañ ko ñaanal mu amaat même ka même même même posture. Mm-hmm. ak même kii doole mu mën a ñëwaat participer si équipe nationale bi. ñu mën a jël coupe d' bii di ñëw. mu doon loo xam ne am solo wa nga ko xool douze euh, liste bi daal di génn douze euh, douze joueuses joueuses lay doon. Euh, sept yëpp ay ay niveau ah. ak ak douze joueurs yëpp la mos gën a métti amul benn Saint-Louisien bi pas parce que ñu gisoon kii di Ndeye Sène peut-être yéen a moomoon basket parce que Ndeye Sène tamit jàppoon nañu doon jàpp lu baax a baax ñii di nii di basketteur yi donc mu doon loo xam lu am solo la.